أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu borom bi tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ba tey ñu ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi tabaraka wa taala tey ñuy jël aaya 12 mu nekk benn aaya bu ñuy jël ñeenti njàngin ñeenti njëriñ bi ci njëkk mooy ci benn aaya bi dinañ ci jëlee bayaanu miraasu zawji wal wa zawja ci benn aaya bi dinañ ci jëlee ndono boroom kër ak soxnaam wala wa zawjatu wa zawjaat min zawjihinna wala jabar wala ay jabar ci seen borom kër aaya bi paase yiñ doon jàng borom bi daf ñu doon jàngal foofu ndono ñan ñoo ko moom bin nasab ci askan bi paase ci askan la woon tey aaya bi ñuy jàng ci wàllu goro la ndono tey wal waarisuuna bil musaaxara mais bi ñu doon jël samedi bi paase boobu ci askan la woon bi nasab loolu moo tax sunu aaya bi ñuy jël tey njàng yuñ ciy jële mooy yàlla daf ñuy leeralal ndono boroom kër ci soxnaam walla soxna si walla soxna yi ci seeni boroom kër ñaareel bi mooy bayaanu miraasul kalaala yàlla tabaraka wa taala am na ku mu tuddee ci alquran alkalaala alkalaala mooy kan ay ay kalaala mooy ku ay waajuram gaañu ba pare amul doom ma baawul dara baawul dara mooy kalaala kooku tey ñu ne wa huwa man la yatruku waladan walidan wala waladan mooy koo xam ne bàyyiwul way jur bàyyiwul doom kan moo koy doon ñu ne fa yarisuhu ixwatuhu faqat ay mbokkam ay sërëm ak ay frèram ñoo koy doon loolu dinañ ko jàng tey ci sunu aaya bi ñetteel bi mooy ihmaalul wasiya awi dayn in ulima ann al garada minha al idraar bil warasa faqat dinañ jàng tey aussi ne waruñoo jëfe bor waruñoo fay bor boo xam ne wala ndénkaane goo xam ne kii faatu dafa ne nañ ko def su fekkee xam nañ ne dafa ëpp dayow wala ñu xam ne kii faatu iñaane gi mu iñaane ñi koy donn soxore gi mu leen soxore looloo tax mu kerye bor bi wala mu def wasiya bi su boobaa kenn du ko exécuté su boobaa kenn du ko jëfe la dañu war a def wasiya ndénkaane goo xam ne dañ koy jëfe kañ su fekkee dafa dëppoog diine dëppoog lislaam du lor ñuy doon kañ lañ war a fay encore bor boo xam nente ne ki ki faatu moo ko leb mooy bu fekkee jéggiwul dayo su fekkente ne bor bi lépp buñ ko fayee alal ji day jeex tag ñi koy doon dañuy loru te sabab bi moom mi moo dem créer loolu rek ngir iñaane ñi kenn du ko topp ci loolu nag ñeenteel mooy azamu saanil mawaris mbokk yi mbirum ndono dafa rëy dafa màgg ci yàlla tabaraka wa taala comme dafa rëy màgg fa yajibu maarifatu zalik war nañ koo xam waaye wa tanfisihi kama wassa allahu taala biha comme ni ko yàlla dénkaanee ne na ngeen ko def loolu dañ ko war a exécuter kenn waru cee sikki sàkk tey li xew ci àddina mooy jàpp na ñun ñoo ëpp yàlla yërmande tey ay kër ay nit li nga gis koo xam ne daanaka ba mu faatoog léegi yaxam yi seey na suñ demoon gas ko luñ fay fekk luñ fa fekk dara yax yëpp seey na mais ba léegi ay miraasam kenn miraasu ko loolu lu garaaw la soo waxee ñu ne day am problème bal kenn problème yàlla moo ko wax wala ñu ne njaboot gi la ñuy bañ ñu tasaaroo comme semaine bi nuñ ma ko waxee ci benn famille boo xam ne bi seen papa dee léegi def na 14 ans am ci ñuy laaj seen ndono bi ñu leen dajalee ma dajale leen waxtaan ak ñoom ne leen dañoo war a miraas kër gi après de il paraît bi ma demee dégg naa ku jigéen ku mag ki da doon jooy naan tey sama rakk yi tey sama rakk yi dañoo nar a tasaaroo rek ah yéen bu ñu jaayee kër gi ay rakkam dañuy tasaaroo waaw mais. léegi kooku ku ko fekk muy jooy nga ni ko looy jooy mu ne damaa yërëm samay rakk moom ak yàlla ku gën a yërëm rakk yi kan moo ëpp yërmande yàlla ku nekk da ngaa war a xam ne bi ngay ñëw fi indiwoo fi benn kër da ngaa war a xam ne kër gi sa papa tabax pourquoi yow mënoo góorgóorlu ba tabax kër ni sa papa arab yi sax dañuy wax ne laysal fata man yaqulu kaana abi inna alfata man yaqulu ha anaza jàmbaar du kii wax sama baay sama baay sama baay sama baay kooku du jàmbaar kan mooy jàmbaar bon ku naan man man waaye sama yow sa papa dafa góorgóorlu fi indi kër soo ko laajoon ndax yow sa papa amoon na kër mu ne la ah xanaa ca gott ba ca kaw ga waaye fii Dakar de moom amu fi kër yow nga ñëw sa papa ñëw fi góorgóorlu ba am fi kër dee bàyyi ko fi quand même bàyyil na la dara pourquoi yow mënoo góorgóorlu ba am kër comme sa papa tout à ñu jàpp ne kër gi bu ñu ko miraasee problème la pourquoi te yàlla moo ne nañ ko miraas ku la ne yow ni nga bañee ñu miraas ko ci biir famille bi ñépp ne yow lañ mel te li gën a garaaw mooy kër gi dafa am ñu ciy dëkk am ñu ci dëkkul ñi ci dëkk di ko jëriñoo ñi ci dëkkul nekk ci biti di fay loca location wala même bu ñu fay location ñi ci dëkk moom ñu ngi ci kër gi te instant bi góor gi faatoo bañ ne dañ koy miraas képp ku dëkk ci kër gi da nga war a fay location ñu ko di ñuy denc xaalis boobu di ko delloowaat ci njaboot gi mais duñ def noonu ñee dañuy nekk ci kër gi di ko jëriñoo di jëriñoo matériel yi ñeneen ñi nekk fële amaana sax ñiy laaj seen wàll ñu naan leen ah kër gi daal kenn du ko jaay léegi kër gi kenn du ko jaay wala bagage yi kenn du leen jaay kenn du miraas te duñ delloo kii wàllam loolu jaaduwul mbokk yi loolu tooñ la bi ci gën a garaaw nag mooy góor gi am ñaari jabar benn jabar ji moo am doom beneen bi amul doom ñi am doom ñi ki am doom ki ak ay doomam dañuy accaparer kër gi dëkk ci kële ñu war ko jox sumunam ñu naan ko amaguñ comme famille bi ma leen di nettali ni ba mu nekk 14 ans ndaw si di laaj sumunam ba léegi kenn joxu ko xam nga loolu du diine te loolu dafa bëri ci biir dëkk bi sunu dëkk problème bi ñu gën a rëy la ci lislaam bi ñu am ñaar la mooy miraas ak ak sëy boo demee tribunal dossier yi fa ëpp miraas la ak sëy lu ko waral mooy ñàkk koo teg ci siraatal mustaqim ci yoonu yàlla moo tax mu bëri fa mais yooyu yëpp yàlla daf ko lijjanti mais ñaar yooyu bëri tribunal ci seen cosaan ci jàkka lañ leen di jëkke waaye fan la ñuy mujjee tribunal la ñuy mujjee sëy bi fan lañ ko doon takke jàkka ji waaye bi ma amee problème fu ñu dem tribunal miraas bi ñu koy def ci lan lañ ko doon def ci lislaam bi ma amee problème ñu daal dem tribunal loolu ab ay jullit duñ ko def ay jullit dañuy nangu li yàlla wax ak yonentam ci suratul ahzab borom baa ngi nettali ne maa kaana li muminin wala mumina ida qada allah wa rasulahu amran an yakunu lahumul xiyara min amrihim yàlla nee na warul jullit bu góor warul jullit bu jigéen yàllaa ko yonent tracé ne nii la ñu naan waaye mais mais mais mais mais ah oui xam nañ yàlla li mu wax dëgg la mais nag loolu warul jullit ab jullit moom bu yàllaa wax yonent waxee lu ñu war a wax samina wa ataana ñun de dégg nañ dañuy jëfe waaye jullit tey lu ñuy wax samina wa asayna loolu musiba la yàlla nañ ci yàlla musal kon borom bi tabaraka wa taala daf ñuy jàngal ma shaa min ahkaami shar'i li ko soob ci attey islaam attey sharia muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa hududu diin ak frontière u diine li yàlla rëdd ne lii la loolu la waaye li ëpp ci ñun seeni bànneex la ñuy demee ak seeni gis-gis ak seeni seeni seeni looloo tax léegi miraas looy gis mooy séddale séddale non nañ bàyyi ñi ñu jël néeg bi non nañ bàyyi ñee ñu jël yére yi nga dégg ko góor ki mu ne non non non garaawul bagage yu jigéen ñi bàyyi naa ko ak samay sœur quoi non non non non xam nga bon kaannahum mu ngi mel ne ñoom ñoo ëpp yàlla yërmande te wala ñoom ñoo gën a xam yàlla wala ñoom ñoo gën a muus yàlla ay julli daal dañuy nangu lu yàlla wax ak yonent kenn waxul miraas day tas mbokk gi miraas bu ñu ko jaaralee li yàlla ak yonent wax mbokk bi du tas parce que ku nekk li nga am dangay xam ne lii la la yàlla jox lii mooy sa wàll lii nga mérité léegi nag dafa am ñoo xam ne yenn saa yi ci miraas bi duñ ci war a bokk ñooy créer problème fekk boole wuñ leen ci miraas bi du am surtout nag yenn saa yi rakku papa yi ak rakku yaay yi te xam nga rakku papa moom balaa muy doon kenn du wax du doon de waaye balaa muy doon dana sori de doom moom saa yu teewee ay rakk takku nañu su doomu amul doomu doom gis nga su doomu doom teewee ay rakk dàqu nañu moo tax mbir yi du question rek ñun la non yàlla daf ko rëdd ku nekk mu ne lii ngay am lii moo la war lii la benn aaya boobu la ñuy jël tey ñaan borom bi tabaraka wa taala mu def ci ñun dégg ak topp أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن السمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين فإن كان وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس fa in kaanu akthara min zalika fa hum shurakaau fi thulus min baadi wasiyatin yuusa biha aw dayn aw daynin gayra mudar wasiyatan min allah wallahu alimun halim yaqulu lmawla borom bi nee na walakum am ngeen ñan la yàlla adressé wax ji góor ñi yàlla nee na yéen góor ñi am ngeen nisf genn wàllu alal maa taraka loo xam ne bàyyi na ko azwaajukum seeni soxna góor bu soxnaam génnee àdduna bàyyi alal ku góor ki am na genn wàllu alal waaye kañ in lam yakun lahunna walad ah su fekkee ndaw si bàyyiwul doom ñaari doom nag la su fekkee ndaw si bàyyiwul doom ñaari doom la yan ak yan mu ngoog doom bu mu am ak waa ji wala doom bu mu am ak keneen ginnaaw ba mu fa see ba tas su fekkee ñaari doom yooyu benn amu ci kon waa ji lan lay doon ci alalu ndaw si nis genn wàllu alal ci waaye bu dee ndaw si bi muy faatu am na ak waa ji doom walla am na ak keneen doom su boobaa position waa ji day changé yàlla mu ne fa in kaana lahunna walad fekkee nag léegi ndaw si am na doom falakum am ngeen arrubo ñaata ñeenteel xaaj mimma tarak na ca la jigéen ña bàyyi allahu akbar maanaam doom ji mooy déplacé papam wala mooy déplacé pap bàyyi bàyyi jiit la ci su doom amul lislaam lan la wax nga am ci saas alalu soxna nisf xaaj alal ji dañuy indi alal ji teg xaaj ko ci digg bi ñaata la bàyyi ñu ne 4 millions anay doomam ñu ne amul doom moog waa ji am nañ doom ñu ne déedéet mus na sëy feneen am doom ñu ne déedéet su boobaa waa ji ñaata lay jël 2 millions yi ndaw si génn naa ñu teg 4 millions yi ñu ne ana jëkkër ji mu ne maa ngi nii ana doom bi mu ne maa ngi nii waa ji lu muy jël un million rubox lay jël mu ngoog lii kay yomb na waaye nag ndaw si dee na bàyyiwul doom bàyyi jëkkër sama waay ñeneen ñi commencé ku nekk di xiir xiir yi bët waaw do caa waaw maa fi nekkoon maa nekkoon ci kër gi lu ci suñu ci yoonu lislaam bi nga nekkee ci kër gi yaa ngi ci doon lekk ci alal gi du dëgg maa nekkoon ci kii yi maa doon sang xar yi maa yoroon bitig bi maa loolu lislaam yoonam nekku ci maanaam moom mayulu ci alamam dara bi muy dudd su dee maa fi nekkoon taxul nga am ci yàgg naa ak moom wala sama papaam ak papaam ñoo bokk ak wala ma ma ne man ragal yàlla loolu rek moo ñu indil problème waaw loolu kese moom moo indil dëkk bi problème keroog benn mbokk laaj na ma amaana mu ngi ci jàkk ji toog nee na seen yaay dafa génn àdduna bàyyi alal tuuti benn kilifa ca koñ ba ne leen comme yaay moo dee buñ koy miraas ñépp ay tolloo góor ak jigéen comme yaay la loolu xanaa masala bu bees la wala jibril dafa commencé waat wàcc wala alxuraan dafa ñëwaat fan la njànge loolu su yaay dee góor ak jigéen ay tolloo bu bàyyi dee góor ay ëppale jigéen loolu ban masala la mais tappale xam ngeen tappale moo bëri ci dëkk bi tappale waaw tappale lekk alalu jirim yi miraas ko nu yàlla waxul loolu moo bëri sunu dëkk bi moo tax problème am borom bi tabaraka wa taala nee na fa in kaana lahunna walad bu fekkee ne jigéen ñi jigéen jooju ngay sëyal wala jigéen ñooñu ngeen sëyal dañoo am doom doom ji nag moo xam yaa ko jur moo xam juróo ko faatu nga falakum yéen am ngeen ar rubu ñeenteelu xaaj bi mimma tarak na ca la ndaw sab jigéen ña lañu bàyyee waaye kañ lañ koy génnee min baadi ginnaaw wasiyatin ndénkaane yuusiina biha ba jigéen ña dénkaane woon balaa ñuy faatu ndaw si balaa muy faatu bu fekkee dafa dénkaane woon am naa benn pàkk pàkk bi de dama bëgg bu ngeen koy jaay nangam wala na ngeen ma ci tabaxal genn wàll gi jàkk leneen nangam su boobaa nañ ko def wala jox leen diw nangam fekk génnul charte lislaam yi bu dénkaanee loo xam ne dafa araam nag kenn du ko def ay de tabaxal leen ma ci baar ak tabaxal leen ma ci benn dansi nag wala na ngeen ma ci defal benn dëj bu xumb ngeen ngeen jënd nag yu ngand loolu moom du diine kenn waru ko def parce que du diine waaw day dégg ñu ne ah alaaji day moom dëjëm bi nañ ko aj ba koor gi jeex ndax moom dafa bëggoon yu rëy dégg naa ko de ay jigéen seen jëkkër gaañu ñu ne dañuy aj dëj bi nañ parce que weeru koor lañ nekk nañ ko aj ba koor gi jeex ñu dëj ko dëj bu rëy mooy nañu bàyyi ba koor gi jeex rek ñu fo parce que dëj amul ci lislaam dëj amul ci lislaam amul fenn fu njàng yàlla mu ne dëj leen ñun ñoo koy def rek Sénégal doo ngay gis nit dee ñu dem dajale ay baas indi ay sées dem jëndi nag ñëw taal ay cin ah teg ay mbana yenn saa yi nga romb ci koñ bi ngay compter quinze mbana vingt mbana ñu rang fii ba fële ndeysaan ñuy jaagaar jaagaari nag jigéen ñi takku paa yi toog xale yi jëw rek ku nekk di fen wele lele lele mbatatatata dugg na fi génn fi amul benn diine daanaka balaa ngay xam ne lii dëj la mooy dangaa laaj ndax xumb xumb bi nu mu xumbee musique rek nga dul gis musique loolu donc mooy différence bi teguñu ci musique waaye leneen amul ñépp a ngi welele li ndeysaan léegi nag xamuñu moom ki dee moom lan la nekk ci bàmmeelam parce que ñoom ñu ngi noos fi te li gën a doy waar Sénégal mooy bala ñuy noos rek foog ñu indi nag bu ngande yàpp yàpp rek yàpp waaw amoon na sama benn xarit ndeysaan papaam gaañu ñu yendu ba ngoon jënd def ceebu jën noonu lekk benn maire yi ne ah ndeysaan coy waaye kii ni mu nekk woon kilifa rek te kenn dëju ko kii ni mu nekk woon kilifa rek te kenn dëju ko ñu koy wax di ko wax ba booru 6 heures waa kër gi daal di genéwo daal di woote dajale xaalis balaa ay sept heures ñu dem daral indi ngandu nag ñu yokk ñu ne waa kay yéen a ngi doog a dëj nag nii la billaahi wallahi taala wa rabbul kaaba nii la kilifa bu dee da ngeen di wane ne kilifa la mooy bëgg nañ lekk yàpp rek ñi am problème mu yàpp bis mu nekk dañ lay kereel rek léegi nag boobu ñu jënd fan lañ ko teg ci ban diine la fan la ko yàlla wax ne ne bu nit dee foog ñu jënd nag waaw te li doy waar fii mooy nit day feebar kenn du la seeti kenn du la indil dara yenn saa yi sax nit yëg ko ñu ne ko yow sa rakku papa bi wala sa nijaay ji wala sa maam bi wala kenn du ah ma bàyyi sonn nga dégg dee na nga ñëw gaare oto bi wàcce ñaari saaku ceeb joxe ñaari junni léegi ñaari saaku ceeb yooyu nga indi ak ñaari junni yooyu koo ko jox pour lan la pour nañ noos quoi nga gis ko ne non kanet yi maa ko res kanet yi bàyyi leen mooy res kanet yi waaw loolu yëpp ay caaxaan leen ak a neexoon bi nga déggee waa ji feebar na nga dem seeti ko boo amee problème ordonnance nga dimbali ko ci waaye fii nit day feebar ci quartier kenn du xam ne am na mbokk ñu naan waa kii est-ce que xam amul ay mbokk mais est-ce que yéen kii am nay mbokk ba mu dee rek nga gis kaat kaat yi ran gars yi génn costume yi diryanke yi ñëw ak seeni musóor yu toll ne siwo waaw daal la yoo xam ne ñu naan ñi ñëpp ay mbokkam lañ kee mooy ministre nangam kële sénateur la kële assemblée la nekk kële fekk ñooñu bi waa ji feebaree wala waa ji li mu dëkk ci koñ bi yëpp durant dix ans yi gisuñu fi benn personnalité bu fi ñëw te loolu moo am ci dëkk bi tey bu dee nag ñi ñëw ndeysaan waaw non c'est que xam nga seen papa lii yëpp moo ko def quoi parce que chaque instant dañ ko doon wax na ñëw ci ñun quoi mais xam nga moom dafa bëgg isolé wu quoi yow lañ liggéey loolu moo tax ñun ñu bàyyi ko moo tax ñu bàyyi ko fii quoi mais xam nga ñun suñu famille ah xam nga moom dong moo ci mel nii parce que nanguwul bokk ak ñun nanguwul di fekk yow paa bi daa dem fukki yoon kenn dimbaliwu ko mu ne fii dootuma fa demati waaw loolu la am na ñoo xam ne ay gor lañ ah ñuy lekk suufit duñ dem ci yow même bu ngeen bokkee ndey ak bàyyi danañ la bàyyi bu fekkee chaque jour bala ñu la gis dañuy ran buñ la bëggee jot téléphone dañuy wëri di wëri boo ñëwee sa kër ñu ne day nelaw te yéen ñaar yéen a bokk ndey ak bàyyi du la ñemee yee am na ñoo xamante ne buñ ñëwee sa kër ñaari yoon ñu ne day nelaw dootuñ fi ñëwaat waxuma sax ngeen bokk su ngeen bokkul sax bu fa waa ji ñëwee ñaari yoon ñu ne ko day nelaw du ñett waxuma laa nag ngeen bokk ndey ak bàyyi da nga koo gën da nga koo gën deret ba yow soo ko soxlaa gis ko moom bu la soxlaa du la gis moom boo ñëwee fekk ñuy nelaw ñu yee ko yow booy nelaw kenn du la yee am na benn góor bu seeti woon doomam weeru koor de benn colonelu marine mu seeti ko weeru koor mu ñëw ñu ne ko non yeewoo gulan gardien bi tegal ko siis mu toog wax ko may papaam de dafa toog rek bàyyi 10 heures waa ji yeewoo daal ne gardien bi ku may seet mu ne ko benn paale de mu ngi fii quoi mu ne ko ne ko mu yegg si quoi mu ñëw fekk doom ji di ndékki mu ne ko père kaa ñu ndékki bopp mu ne ko tout daal di dagg saaga yow ñu nekk ci weeru koor mu ne ah bon ci weeru koor lañ nekk ah wala kooku dan yàlla yërëm yoon ne ñun sunu diine foog sunu dëkk bi mel nii parce que dundu diine nag wax dëgg yàlla dañuy wax Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent musulman waaye wax dëgg yàlla li ma gis démb ci Facebook bi mu daw sama yaram trop benn cheikh ndeysaan bu dugg ci biir Égypte ci dëkk yi kaw yi kaw yi dugg ci kër yi daa jaar ci mbedd yi ku mu dajee rek jigéen ne la jàngal ma Fatiha ndeysaan nga gis ku hijab muur kanamam munul Fatiha waxuma ku muuruwul de ku muuru laa wax muur kanamam munul Fatiha billaay wallaay nga gis ku muuru munul Fatiha nga gis jigéen joo xam ne nga gis góor goo xam ne ci ne la man huwa rasulul islam Moussa Ibrahim laa laa laa nabiyul islam man huwa ah Seydina Isa ay nit ñoo xam ne xamuñu Muhammad turu Muhammad xamuñu ko ak a bëri ci Sénégal ay nit yu mokkalul Fatiha am naa sama benn xarit ci jamaa tabliir la bokk Ilias la tudd dafa dem Fuuta seen kër Fuuta fi mu juddoo fii seen famille bu ñu nekk mu dajale jigéen ñi génne 5000 mu ne ku tari Fatiha ma may ko 5000 kenn mënul Fatiha loolu bëri na ci suñ kër yi de loolu bëri na ci suñ kër yi ay pa ak ay maire yoo xam ne mënuñu faatiha li tax ñu am problème mu iliman am na pa yoo xam ne duñ jiite timis ak suba ak gee takkusaan ak timis tisbaar rek moom ñu dem ci kanam iliman ñëwul rek ñu dem ci kanam timis bu ñëwul ñun ñun ñu ne booy booy booy doxal lu tax xam nga loolu wóorul xam nga loolu wóorul képp kuy bañ a jiite timis ak gee ak suba bu mu la jiite tisbaar ak taksaan parce que du wax dara wóorul wóorul de waaw ah daa dégg leen dégg leen suñu papa mu ne yàlla nattu na ko def gan googu am sifaatu islam gan gu yiw ndeysaan allahu akbar mu fatiha wallahi ak a bëri nga dugg sa biir néeg allahu akbar ah waay damay julli kay allahu akbar wala lool rek ndeysaan am na benn sëriñ bu ganee woon benn taalibeem ñëw rek defar affaire yi julli jot rek mu dem indi sijaada yi lal-lal daal di kàbbar rek xale yi naan baaba juuli baaba juuli baaba juuli dégg ngeen loolu e waaye suñ papa mu ngi julli waay suñ papa mu ngi julli mu dem waaw musu jul daan baaba juuli baaba juuli man mus naa am gan mus naa am gan de wallahi lazim mus naa am gan yàgg na boobu maa ngi maa ngi alfala di jàng élève la ma am gan du ma fàtte sax ba léegi yére yu mu soloon grand boobu yu weex tal ma ñëw rek sama yaay mu ne kii kii sunu ñoo bokk dëkk nangam nangam ko wax waaw ma yóbbu ko sama léegi timis jot rek ma lal affaire ñu ñu julli mu julli ñaari raak daal di sëlmal ma daal di xëcc sama sijaada bu baax te bu suñu biir saal daal di julliwaat ñaari raak la julli sëlmal timis ñaari raak ak a bëri ci dëkk bi ñu xamul dara ci lislaam ak a bëri ak a bëri billahi wallahi taala ak a bëri loolu wóoru loolu yëpp lu ko waral mooy sunu diine rek la ñuy foowe maanaam ni ñuy foowee julli noonu la ñuy foowee miraas loolu la ñuy foowee sëy maanaam parce que xamuñu ku xamul nag wax dëgg yàlla munoo defar li tax yëf yi mun ta baax mooy xamuñu li kon problème yu fekkee dañoo am problème ci yu ndaw yi kon yu ngand yi nag genre miraas ak ay julli suñ ko xamulee yeneen yi nga defee ne dinañ ko respecté mënul nekk surtout nag miraas nga xam ne ay affaire u xaalis la ay affaire u ah ndono la alal jàng dañ koy séddale affaire u alal la xam nga ne loolu foog problème am borom bi tabaraka wa taala mu ne wala hunna kan lañu waxoon sànq kan lañ doon waxal ñu góor ñi léegi nag affaire bi changé na wala hunna ñoom jigéen ñi am nañu arrubu ñeenteelu xaaj kañ mimma taraktum ci yéen lu ngeen bàyyi bu góor faatoo bàyyi soxna soxna si ñaata lay am ci alal ji ñeenteelu xaaj waaye kañ in lam yakunna lakum walad bu fekkee yéen góor ñi génn àdduna amuleen doom ak moom bu ngeen amul doom rek ndaw sa lu muy jël ñeenteelu xaaj waaye wa in kaana lakum walad bu fekkee yéen da ngeen am doom falahunna sumun gis nga jigéen moom saa yu borom këram amee doom rek jigéen ji déplacé wu na xaj fu mu jëm sumun rek sumun juróom-ñetteelu xaaj jigéen moom su doom taxawee sumun lay am moo xam doom ji moo ko jur moo xam doom ji juru ko sumun rek loolu la yàlla wax bu yeboo ngeen nekk juróom fukki at waaye li li mbokk bi doon wax keroog paa bi di dee am ñetti soxna daan ne kër yu baax yi soxna si moo ko moom kër yu bon yi waaw yi rafetul yi yi nga xam ne dañoo màgget kee moo ko moom ki amul doom moom mu ne ko yow moo dara di saat kooku moo war a séddale te waaye kii séddale bii ma ànduwut ñu ne ko waaw lu tax nga jox ñii kër yu baax yi mu ne waaw ñii ñoo ma ñii bi ma ñii ñoo ma doon toppatoo bi ma feebaree lu tax nga jox ñee kër yu màgget yi mu ne ñee bi ma feebaree seet si wuñ ma waaw léegi nag ki nga xam ne moom amul doom nag te nekkoon fi di la seet di la seet nag moom dox joxoo ko dara mu ne ko ko amul doom loolu du diine islam attewul woon noonu et puis miraas kenn amul droit di ko tracel sa bopp ndax yàlla moo ko tracé mi ngi nii yàlla moo ne lii lii lii la lii lii nii la ñuy def ba mu jeex léegi nit ñi ñoom ñooy ñëw fekk li yàlla wax ñu foqarti ko ne li yàlla wax kenn du ko fi def da ngay gis léegi am na ji nit ñoo xam ne dañuy miraas par exemple jigéen am benn góor am ñaar ndaw si daal di fiy teg xaal alalam daal dem police dem tribunal te xam nga foofu bu demee lu ñuy def mooy li yàlla wax la ñuy teggi parce que ñun xamuñu yàlla loisan ak pôle lañ lay àtte xoolal ki ne man jullit laa ñu miraas ci lislaam ne la nii la nga bañ dem ci keneen ne lii la Omar ki mu reyoon lu tax mu rey ko yahut ak benn jullit ñoo xeex yahut ak jullit yahud bi dem ci Aboubacar ne ko damaa xeex ak jullit bi dem ci Aboubacar ne ko damaa xeex ak benn yahud dem ci yonente bi mu àtte ma waaye yonente bi li mu wax d'accorduma ci Aboubacar ne ko lan la mu wax Aboubacar ne ko li yonente bi wax noonu la yow mi yaa tooñ mu ne d'accorduma ci mu dem ci Umar ne Umar dem naa ci yonente bi mu àtte nanguwuma ma dem ci Aboubacar mu àtte nanguwuma ma ñëw ci yow Umar ne ko xaar ma ñëw dem daas jaasi ji ba mu ñaw nëbbu ko ci ginnaaw ñëw nga ni ko loo wax mu waxaat Omar dagg bopp bi taw bopp bi wadd saxaaba yi ne ko kii jullit la alquran wàcc fala wa rabbik laa yuminuun xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum summa laa yajidu fi anfusihim xarajan mimma qadayt wa yusallimu taslima yàlla ne bu ñu jullee bugguma bu ñu wooree bugguma bu ñu ajee màkk bugguma fala wa rabbik laa yuminuun nit ñi du ñu gëm xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum lu dul bu ñu amee problème yow yaay nekk tribunal bi ñu yow ci yow Muhammad est-ce que ñun kon jur gëm nañ xool yàlla daf ko dàq dafa ne fala déedéet ba pare mu giñ moom borom giñ naa ci sa borom yow Muhammad nit ñi lu ñu def bugguma ko lu dul yow yaay nekk tribunal bu ñuy attew xatta yu hakkimuuka ba ñu attee loola fii ma shajara baynahum ci problème yi ñu am te boo attee kat su ma laa yajidu fi anfusihim xarajan soo attee duñu ñuulal kanam waaw ñëkkal kanam ñuul ko c'est parce que da nga leen ne yaa tooñ déedéet su ma laa yajidu fi anfusihim xarajan mimma qadayt soo nango soo attee rek wa yusallimu dañuy nangu de wax dëgg la nangu naa man mii maa tooñ allahu akbar li waa ji doon wax nangu naa nañ ma rey maa ngi nii man la nañ ma rey comme islam dañ ne nañ ma rey rey leen ma maa ngi nii allahu akbar summa laa yajidu fi anfusihim xarajan mimma qadayt duñ ci yam de wa yusallimu taslima dañuy jébbulu nangu ñu doog a nekk ay jullit xoolal beneen aaya bi daan la wax afa hukmul jahiliyati yabghuun ah yéen atte ceddo moo leen gënal atte yàlla afa hukmul jahile yabxuun yéen atte laïcité laïc moo leen gënal atte yàlla wa man ahsanu min allahi hukman li qawmin yaqiluun ana kan moo gën a rafet yàlla atte ci ay nit yoo xam ne am nañu xel kon mbir yi du du ñu ngi julli rek ñu ngi woor ñu ngi déedéet mbir yi ay sew-sew la yoo xam ne ci biir julli di la nekk feek nanguwuñu koo def dañuy sonal suñu bopp jàngeen ñi arab yi ñëwoon ci yonente bi ne ñun ay jullit lañ gëm nañ yàlla lu leen islaam wax qaalat il arabu yàlla da ko dàq ne qul lam tu'minu du dëgg waaye walakin qulu aslam na wax leen dugg nañ rek dugg nañ ci islaam waaye wala maa yadxulul imaanu fi qulubikum ngëm duggagul ci seen xol yi ndax ngëm ku mu dugg sa xol doo jëfee nii ngay jëfee kon ñun Sénégal suñu déggee aaya moom ñun lu ñuy wax ñun Sénégal dugg nañ ci lislaam waaye gëmaguñu amaguñu imaan kañ la ñu am imaan nit ko amul imaan est-ce que am na njëriñ ah wax dëgg yàlla man jullit laa nag waaw nag jullit laa de ñu ne waaw bismillah nga ne waaw waaw nag lii nag eggaguma foofu mënaguma koo def léegi ana sa sabab dugg ci lislaam borom bi dafa ne atuminuuna bi baadil kitab wa takfuruuna bi baad fama jazaau man yafalu zalika minkum mu ne illa xizyun fi lxayati dunia wa yowma alqiyamati yuradduuna ila asadi alazab wa ma allahu bi gafilin amma taamaluun kon mbir yi nañ ko bàyyi xel ñu jàpp ne l'islam bi dafa wàcc lii nii yàlla di tracé di wax ay luwaa la xoola léegi nag bu nit deewee ñu ñëw naan ko walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakunna gaa yi naan amin amin amin yàlla di àtte ñu naan yi dañu rek di di dañu jàngal ku deegi c'est catastrophe quoi li ay luwaa la e ñu ne dañ koy ñaanal ku dee ri gaa yi naan amin dëgër fit amin walakum nisfu ma taraka azwajukum loolu ban ñaan la te alquran yëpp lii la wala wa aqimu salawaatu zakat nga de gaa yi naan amin leen saa ngi ñu ne ñu ñu ñuy jàng xulaasu ref kii ñuy ñaan nga dégg ñu ne nañ def juróom-ñaari alam nasara alam nasara laka sadraka wa amin qulu amin nga gis ku dëgër fit naan qulu amin te moo ci gën dëgër fit rek moo tax mu naan wax leen amin waaw surtout ci bàmmeel yi nag surtout ci armeel yi foofu la gën a doy waar yal nañ yàlla jubal mbokk yi borom bi nee na wala hunna jigéen ñi am nañ ar rubu ñeenteelu xaaj mimma taraktum ci yéen lu ngeen bàyyi yéen ñan yéen góor ñi bu ngeen faatoo kañ la loolu di nekk in lam yakun lakum walad bu fekkee yéen amuleen doom ak moom wala amuleen doom ak keneen fa in kaana lakum walad bu fekkee ne ki faatu bàyyi na doom falahunna jigéen ñi am nañ assumunu assumun juróom-ñetteel mooy sumun mimma taraktum ci yéen lu ngeen bàyyi loolu tamit kañ lañ koy génne min baadi ginnaaw wasiyatin ndénkaane tuusuuna biha bu ngeen ndénkaane woon aw daynin wala bor boo ngeen xam ne amoon ngeen ko waa ji dee na bàyyi na bor ñu génne bor bi fay dénkaane na woon ñu def ndénkaane gi wa in kaana rajulun bu fekkee nag benn waay moom yuurasu dañ koy doon kalaala cundung amul ndey amul baay amul doom aw imraa wala mu nekk jigéen moom tamit kazalik amul ndey amul baay amul doom waaye kooku dee amul ndey amul baay amul doom wala hu am na axun frère aw uxtun wala am na sœur frère bi ak sœur bi fa li kulli waahidin minhuma kenn ku nekk ci ñoom ñaar day am sudus juróom benneel alal su fekkee ku jigéen ki la juróom benneel bi lay jël su fekkee ku góor ki la juróom benneel bi lay jël dégg ngeen wax bi ah fa in kaanu aksara min zalika bu dee dañoo ëpp nag fa hum suraka u fi sulus ñoom ñëpp dañ leen di boole ñetteelu xaaj ñoo fa yam fi ñoo fa yam ndax kalaala la waa ji dafa dee amul ndey amul baay amul doom frère ak sœur la am frère bi ak sœur bi frère bi fekkee moom frère kese kese la am sudus lay jël su fekkee sœur kese kese kese la am sudus lay jël su fekkee ñoom ñaar la nag wala ëpp na ñaar fa hum suraka fi sulus dañ leen di boole ci troisième àll troisième xaaj ñu bokk ceer bi leer na min baadi ginnaaw wasiyati ndénkaane yuusa biha bu mu dénkaane woon aw daynin wala bor gayra mudoor bu dul bor buy lore waa ji daa jee bàyyi 10 millions am bor 10 millions wala waa ji daa dee bàyyiwul alal mais bàyyi na kër mais bàyyi na bor bor bi ñaata la ñu ne 100 millions kër gi lu ñu koy jaay ñu ne 100 millions dana doom lu sax lu sax loolu mooy bor buy lor bor boobu baaxul bor boobu mooy bor bu lor te amaana yenn saa yi waa ji li tax mu leb bor boobu mooy iñaaneel ñii du ma fi bàyyi dara léeg-léeg nga dégg ko ne du ma fi bàyyi dara laa wax lépp laay lekk balaa may dee déet waay bàyyi fi dara kay nga bàyyi say doom ñu am lu ñu dunde moo gën nga bàyyi leen ñuy ñaani ndimbal loolu la yonent bi waxoon saxaaba ba ba mu ne benn doom bu jigéen la am te maa joxe sama genn wàllu alal mu ne ko déedéet te maa joxe sulus mu ne ko déedéet te maa joxe nangam mu ne ko déedéet mu bëgg a insi yonent bi ne ko nga bàyyi fi sa doom dara moo gën nga bàyyi leen ñu kaw tegu ci kaw nit ñi kenn du iñaane sang ndono yow defal li la yàlla wax dee nga sa alal yàlla moo ko séddale bul feebar rek wala nga mere kenn ci kër gi wala wala wala wala wala wala nga mere soxna si nga jaay kër gi na paa yi def noonu dem takk benn xale bu ndaw dem ba ci digg àll ba ñu jënd fa benn terrain tabax ko nekk foofu di noos loolu kenn du ko def wala fi nee nañ ku iñaane sag ndono sa deewin ñaaw kenn du iñaane sa ndono problème bi yëpp ñun ñoo koy def souvent yenn saa yi jigéen ñi ñooy dox diggante doom yi ak baay yi fexe ba kër gi am ay clan ñii far ñii far waaw te souvent bu ñu koy def rek mooy góor gi dafa amoon alal léegi amatul wala paa bi tamit jékki-jékki rek jël xaalisam dem fële ut fa benn xale bu ndaw bu koy indi ci kër gi ñu ne ko dugg fi indi mu dem jaar ci suuf jaay kër ga problème yu dul jeex famille yooyu tas nga gis bàyyi boo xamante ne am nay doom yu mag mais doom yi bàyyi ko ay problème yu bari tey ci biir dëkk bi la wax sa yaram day daw di nga ci gis ñoo xam ne seen bàyyi day dee duñ fa taxaw duñ fa taxaw waaw comme semaine bi am na benn mbokk bi muy tàmbali dund sunna ca njëlbeen papaam daf ko génne loon fetal ne ko dugati ci kër gi rek dóor naa la bal waa ci génn kër gi li may wax booba léegi mën naa am ñaar fukki at paa bi gaañu semaine bi passé ñu woo waa ji téléphone mu ne ma kenn woo ma kenn woo waa ji ba léegi suuli nañ paa bi waa ji ba ñëwagul ba léegi nga loolu loolu dafa doy waar lu kenn du ko def te diine la yu mel noonu dafa bëri ci dëkk bi te kooku moom li taxoon sax mu def loolu doom mooy doom ji doon dund sunna kese mu mere ko xeex ak moom ba sonn xale bi bañ mu génne pistolet ne ko boo moo la gisati ci kër gi dama lay dóor bal ko dem yoonam tey maa ngi déglu benn kaset ci benn dëkk cheikh bi doon def waxtaan bi mu ne dafa toog benn jour ak benn xale bu góor nuyu si ko di jooy mu ne ko wama sirru bukaik luy sa sekkere jooy bi looy jooy mu ne ko sama yaay day njaaloog sunu benn dëkkandoo bi ma ko yéegee ma wax ko ko mu ne ma gis nga boo génnul kër gi dinaa la posone ci lekk bi nga dee mu ne ma génn kër gi cheikh bi ne ko waa sa papa lu mu ci wax mu ne sama papa dafa tere tere ba sonn mënuñ ci dara mu mujj noppi xool loolu nu mu grave souvent jigéen ñi bu góor ñi màggetee rek wala ñu retraité amatuñ alal rek ñu commencé di leen xeex commencé di leen teg loo xam ne ah dootuñu lekk heure dootuñu tëdd heure dootuñu sangu heure kenn dootu leen bale seen néeg kenn dootu leen fóotal c'est parce que léegi góor gi mënatul dara loolu loolu après doom yi ànd ci quoi gis naa benn góor goo xam ne bi mu nekkee seeraas borom alal la woon am ñeenti soxna soxna su nekk mu defal la étage yaag say doom ngeen të- nekk fa mais gis nga bi mu feebaram bi mu mujjee nekk ci ay mujjantalu dundam xiif moo ko rey xiif parce que kenn talu ko su mbindaan mi nekkee fii daal ci kër gi dana lekk bu mbindaan mi wàccee dootu lekk bu mbindaan mi ñëw parce que mbindaan mi moo koy gérer xam nga doom yi la ñëw alors pas yaa ngi tëdd vif alors góor gi mu ngi tane vif kenn du dugg sax ci néeg bi ana paa bi mu ngi tane ñu ne réew bi alors paa vif xiif moo rey paa bi xiif léegi nga doom yooyu nañ barkeel ginnaaw après rek léegi dañuy dem suuli ko ñëwaat ku nekk waaw di gazé nag yàlla di la yor rek li nga leble foog yàlla fay la ko nañ bàyyi loolu xel nanu dundandoo ak sunu way jur yi ci njekk ñun ay jullit lañ bu ñu leen yóbbu maison lan maison de retraite ay jullit lan dëkk ak sunu way jur yi ci dëkk bu rafet Ibn Abbas dafa gis benn waaye bu boot baayam di wër kaaba gi mu ne ko xanaa léegi pare naa mu ne ko defagoo dara benn jeune ñëw na di tàggu yonent bi ne ko damay jihaat mu ne ko am nga ndey ak bàyyi mu ne waaw mu ne ko demal nga jihaat ci ñoom ñaar kon borom bi nee na min baadi ginnaaw wasiyati ndénkaane yuusa biha boo xam ne waa ji def ko dénkaane woon dañ ko dénkaane woon aw daynin wala bor gayra mudarin budul bor buy lor lii nag mbokk yi wasiyatan ndénkaane la minallahi bu bàyyi koo ci yàlla waa ndénkaane bu bàyyi koo ci yàlla lu ngeen ci xam sàmm ko ndénkaane bu bàyyi koo ci kilifa yu ndaw yi rek lu ko nit ñi di def jëfe rawatina nag ndénkaane bu bàyyi koo ci yàlla ayuhal muminuun bi haza wasiya fa hiya jadiratun bil ihtiram wal imtisal ndénkaane bi dafa yey ñu respecté ko waaye ñu langaamu ci téye ko ndax kan ma ko dénkaane mooy yàlla subhanahu wa taala mu ne wasiyatan ndénkaane la min allahi bàyyi ko ci yàlla na ngeen yëg ne wallahu yàlla alimun ku xam la waaye xalimun ku lewet la alimun ku xam la te lépp la xam amul lu mu bàyyi bu góor gi deewee ngeen nekk fii di def lu leen neex ci alal ji wala meer bi dee ngeen di def lu leen neex wala ngeen nekk ci miraas bi def lu leen neex da ngeen yëg na yàlla xam na ko waaye xalim laa yuaajilu bil uquba ala al maasiya yàlla dafa lewet moo tax yàlla boo ko tooñee nit ngay tooñ rek mu ne la yow dem uti yatam yàkkamti waaye yàlla moom boo ko tooñee du wut yet du la koj parce que xam na ne wiiri waawaaw àll la rek ba nga dëgg de dex la rek da ngaa mar yàgg-yàgg di nga ñëw robinet bi rek yàgg-yàgg di nga ñëw ci robinet bi naan mu ne yàlla xalim loo def def lu bon yàlla yàkkamtiwu la mu ngi lay xaar bu dee doomu aadama nag sa doom da nga ko yónni mu bañ yaa ngi xaar ba mu tëdd si waaw bu dee grand la nag yaa ngi xaar ba mu am soxla ci yow nag wala yaa ngi xaar ba mu amaa yàlla moom yàkkamtiwul loolu mooy xalim moom ku lewet la moom yàkkamtiwul la dalay bàyyi rek ba nga faatu ba nga dugg bàmmeel doo rëcc kenn du rëcc yàlla du ci kaw asamaan du ci suuf amoo fenn booy dem baraw borom bi tabaraka wa taala moo tax yàlla yàkkamtiwul borom xam-xam bi day wax ne bu ngeen jàngee alquran ba aaya di jeex na ngeen bàyyi xel aaya bi fu muy jeexee mbokk yi sunu aaya bi fu muy jeexee tey mooy ñu yëg ne wallahu yàlla alimun waaye xalim yàlla borom xam-xam la lépp la xam alim waaye xalim gis ngeen baat di ñoo ànd alim xalim yal na yàlla def si ñun dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu